bi may tàggu sama kilifa di ko xamal ni fas naa yéene mott li ji sama liggéey bitim réew daf ni ma ah, yàlla na la yàlla yàpp ci yoonu jàmm de wante bu ma sañoon doo duggi mukk di fi bàyyi lënt wi ak coow li te amooloo ci leeral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 moom mi nga xam ni Sëriñ Tuubaa nee na ko antal karimu yow yaay ku tedd nee na jariñ na ma aji jariñ yi c'est-à-dire yàlla njariñul wommatal ma xolu jàmbaari fàkk tëdd yi sonn ci jëm ci seen boroom ba seen boroom defal leen ko xol yooyu jublu ma